Guinaas ne màggal gi wax réew mi quotidien mu yokk lim gi nga xamante ni ñoo ñëwoon ci Touba ngir amal màggal ga moom wàññi na lu ëpp juróom benn million doomu aadama fukk ak juróom-ñaari délégation yi nga xamante ni ñoo jóge ci bitim réew Vox Populi dalal sëñ Abdou Lahad Mbacke Gaynde Fatma moom nag li mu xam moo di màggal gi moo battre li nga xamante ni moo di record bi waaye l'évidence yéene kaay ni ka màggal gi nag li ci ñuul moo di ndox mu sell doom bu góor la fa woon gis ka rek dafa jafe woon ba noppi mën na mi nag sonaloon na askan wi nga xamante ni ñoo fa ñëwoon ngir amal màggal gi Sud Quotidien 18 safar bi nag dafa alaa daw me woon Vox Populi ñëwaat ak ñun ci bilang bi nga xamante ni sapeur pompier yi def nañ ko démb ni téeméer ak ñeent fukk ak benn sorte def ñeenti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak benn accident moo am fukk ak juróom ñoo ci ñàkk seen bakkan bés bi la jour ca jamono jooj nag mu ñëwaat ak ñun nataal dëkk bu sell boobu di Touba ak ni mu taaroo l'observateur ni Touba ak i xéewalam waaye nag mu def ab gëstu bu yaatu ci Baay li tax ñuy solo anam gi ni mel ak complexe Cheikh Amadou Bamba mbir ya fa nekk l'observateur ñëwaat na Maryland ca États-Unis laas ni ca jamono jooj nag politiciens yi nga xamante ni ñoo bëgg nekk candidat ci élection présidentielle yii di ñëw ñu ngi wutali woon foofee ci Touba fan yëpp rawatina ñi nga xamante ni ñoo bëgg nekk candidat benn bokk bokk na si Abdoulaye Daouda Diallo Aly Ngouille Ndiaye ak Amadou Ba Walf Quotidien ne Macky tànn gi nga xamante yéex na ko tànn candidat benn bokk loole nag mën naa indi coalition bu tas Walf Quotidien ñooñu nag bëgg nekk candidat demoon ci Touba dañu bëgg rek ku leen créé li mu xam ne moo di candidat benn bokk yaakaar kii la war a doon loolee nag mi ngi ko dëxañ ci biir journal bii di Les Échos yéen a nag Ousmane Sonko buñ ko génnee ci kaso bi bàyyi ko mu ñibbi këram ndax grève de la faim bi nga xamante ni moom lay amal rek nañu tas kaso yi ku nekk ñu bàyyi la nga ñibbi sa kër ca jamono joj nag source a ni Abdoulaye Daouda Diallo Macky tànn ko wala mu bañ ko tànn ngir mu jiite coalition benn bokk yaakaar dina Pay dëkk ca Padoa ak Fatou Diouf nekkoon député te mu dëkk ca Yaraax Libération dikkaat ak ñun ci mbëkk mi Barça wala Barça nee na ñeenti gaal teer nañ ci jiiru ñaari fan ko fe ca Espagne yoboon nañ lu toll juróomi téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñetti doomu aadama lépp ñetti junni doomu aadama teer nañ ci waaxi Espagne ci weeru ut bi weesu journal bi ne ñi nga xamante ne ñoo teer ci waaxi Espagne ñoo ñëpp nag Sénégal gii leen jógee te dimanche bi weesu marine nationale teg na loxo ab gaal gu nga xamante ni yab na lu ëpp téeméeri doomu aadama maanaam gaal yi nga xamante ne ñoom ñooy teer ca waax Espagne dafa gën bëri inna lillahi wa inna ilayhi rajiun Fatou Kiné Dème dem na l'observateur xëy ak ñun fësal ñu nataalam ne moom mi nga xamante ni borom reeju neex ji moom mi nga xamante ni présentatrice bu mag la woon foofee ca Télé Futur ak ay kàddoom yu teey dem na moo doon lobsi ni GFM étant deuil maanaam ñoo ngi ci dëcc beneen doomu aadama tamit bu génn àdduna l'observateur diñ ko xamal moo di Jean Paul Dalmeida nee moom nag ak acteur bu mag la woon sport ak stade xamante ni Aliou Cissé sélectionné na ko waaye moom nag fësal na ay kàddoom ci biir stade yéen kaay nee na moom xam na ni concurrence bi du yomb ndaxte gis na ne ay arrière gauche yu bëri ñi ngi fëgg ci buntu tanière bi waaye nag li ko yitteel moo di mu fexe ba nekk li nga xamante ni moo di titulaire ci équipe nationale bu Sénégal Aliou di entraîneur ba moom amal na galop bu njëkk ci stade Abdoulaye Wade waaye fukk ak juróom-ñetti gaynde rek ñoo ci teew mi nga la dugal ci juróomi match ab xel mu la ñëwee ci tanière boobule sunu lamb fësal ci xëtam mu